my اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم koo xam dara dara dara dara dara dara dara amul ak weeru koor gi ah waaye man dëgg dëgg waaye waaye nag pexe mënut a ñàkk de tey moom ni ma ci génnee rek dinaa ko def am nañ yërmande iya, ci ci way kii naa gumba gum naa gumba gumbalu rek xëy na ñuy defal yàlla moom buñ fi jaaree xëy na ñu defal ma yàlla xaaral ma dox ba nee rek laal fa sama basang yi toog gitu. kaaje xanaa modifié nii dëgg-dëgg nag. moom quartier bi moom kenn xaw ma kenn kenn su ma la leen nii sama basan gi bu soobee yàlla naa mën a taqale lu ma ndogo dara ah man dëgg man maa ngi la nii sama mi des na ko waxaat simillah bisabilillah lu waay manta attan bëgg lu ma yóbbu ca njaboot ga samay bët gisul bismillah fisabilillah bismillah fisabilillah lu waay manta attan lu ma yóbbu kër ga rek laa bëgg bismillah lu waay manta attan bismillah bisimilah lu waay mënta attan fi sabilillah samay bët neexul ma bëgg lu ma yóbbu ca kër ga bisimilah fi sabilillah fi sabilillah asalaamaaleykum aleykum salaam ah sëñ bi naa def sant yàlla bu baax alhamdulilah jërëjëf alhamdulilah jërëjëf yàlla na la yàlla fay amiin amiin dañ koo dégg saraxub daal tamit man lu ma yóbbu kër gi laa bëgg mooy joxe daal man li ma yor ci daal doy ko am cëpp moom looy lii moom doom lii moom kekk la am suufa neewi papa yow da ngay gis wala ma jox de neex na waaye daa mel ne sa loxo yii <laughs> dëgg la ah waay yu muy nitu àjjana nga de jërëjëf de ah waay ah, ah, ah, xool day gis xool day gis yow mii da koo taajool ndogu <laughs> yàlla bind ko yoolu koor ñaari at de ah waay dëgg dëgg yow mii de yow rek yaa tax nag ñu defar baax xanaa xamoo baa ñu mel ne yow ko war a sol ndeysaan waay dëgg dëgg yow mii de koo sarax mu jël de wan ma gannaaw ma xool gisa ah déet gisuma waaye xool bee gis ndax ah waay sàmba eh, doomu say poto baax na de yow da koo sarax mu jël li nii lii xuma kekk la xuma suufa neewi say woggu baax na doom loolu ah, ay koy dëgg dëgg kii de ñaari gëléem mi la ma jox mu ñu gën koo xam ci ñaar téeméer ah, kii de dëgg dëgg nag moom xam naa fa mu jóge fa mu jublu moom yu yàlla dana fa jëm kii di daa mel ne yëgul bi moom ak koor gi ak corona bi dëkk bi lépp na taj mu joxew miir ah xaaral soqi kooko man dëgg de